deux derniers jours euh, ban bilan nga ciy def parce que gis nañu que ne euh, dans l' administration que kilifa yi impôt domaine moom nee na euh, flop la ñaari fan yi parce que nee na premier jour bi ça a été suivi par onze pour cent des agents deuxième jour bi dix pour cent te teewul impôt domaine ci ñaari fan yooyu neen collecté na ci koppar yu bëri ba lu tolloog cent cent milliards de francs CFA. waa ñun moom kon bokkuñu DGID bi ñu nekk. <laughs> parce que quand même DGID boo xamante ne. dem nga dans beaucoup de services fekkoo fa kenn lu dul peut-être mennum chef de service yi doon peut-être essayer d'assurer le service minimum ak quelques autres agents yoo xamante ni ils ne relèvent pas du cadre des agents yi nekk ci SAID bi donc su ñu waxee même les tout qu'on la xanaa yow sax en temps normal boo calculer ñi feebar ak ñi absenté pour une raison ou pour une autre rek tu es à peu près à ces taux raisonnablement mm-hmm. et puis on décrète un mouvement de grève <laughs> nit ñi suivre que ba contribuable seen boobu yëg ko constaté ko on donne des taux. oui xam naa kenn kuy liggéey impôt domaine ah mais jour bi mu liggéey noonu elle m'a savoir que ne gisul kenn de toute la ah, journée. absolument elle était sur place. xam nga moom bu ko waxee boo interroger woon aussi les les contribuables tamit. Mm-hmm. il y a même des facteurs yoo xamante ni yooyu c'est des c'est des c'est d'ordre de yoo xamante ni da ngay dem constater que nii de visu c'est-à-dire que ay datu 15 ak 16 boo ñëwee ci service impôt le premier problème li yeneen facteurs yi mooy soo ñëwee yeneen yenn bureau yi on s'est débrouillé quand ba xamante ni quand nit ñi la soxla comme. Euh, comme service euh, boo fa ñëwee tey ngay dox dara rapidement da nga dox dem mais keroog ña fa nekkoon justement parce qu'il y avait que le service minimum. Mhm. ils ont mis du temps pour euh, pour mën a am le service ñenn ñi mënuñ mënuñu woon a am le service ba ñu doon wut ndax ña ëpp ca personnel ba keroog ñun. donc ah. c'est tôt là avance vraiment. neutre danañu mat loolu noonu ñuy wax. léegi yéen euh, ban évaluation ngeen di def ci ñaari fan yooyu noonu. à votre niveau lu wute ak li gars yi wax. waaw ñun li ñuy wax mooy euh, c'est une réussite totale.